yalla def nañu dugg ci campagne bi tey bés ni ñu gisee bés bi xel dal na yoof lañ ko commencé Khalifa bi ñaanal ñu Diouf sar tawam wax ak ñun joxe fa message bu am solo woné ni population de Yoff fas nañu yéene jappalé président Macky Sall ndax li ñu gis ñoom mooy li fi président Tambali, bi mu fi toogeek léegi dëgg-dëgg dal na seen xel dañoo bëgg mu mu continuer liggéey liggéey boobu biñ fa jógee dem nañu wakam, dëgg neex yàlla wakam aussi gis nañ fa ñoo andon ak yéen yéen ñoo àndoon am na loo xam ni ñun sax duñoo ko wara a wax yéen a ko war wax ndax yéen a ko gis gis ngeen ni wakam dem ba dem ci jumaa ji mosquée de la divinité ni nit ñi xëree woon ni nit ñi buggee woon ñëw saafonteeg ñun muy loo xam ni lu daw yaram la woon on a été très touché très ému tellement nit ñi dañoo communier ak ñun pour jàppale ñu sëriñ bi ñaanal ñu ñu jógee fa dem Ngor yéen aussi gis ngeen ndax ñoo nekkoon ñu ñëw parcelle nag man mënatuma leen a fay li may wax ndax depuis 3 heures waa Parcelles Assainies ñu ngi tok lolu yeen du ngeen mën a la ba fi mu nek ni ay mag tok nañ fi presque juróom ben ba juróom-ñaari waxtu di ñu xaar té mobilisation bi dara wàññeeku ci donc ñun ñoo leen yoreel ñukkal mais surtout li ñi bëgg wax c'est un message moy gis-gis vision bi président Macky Sall am ñom and nañ ci lolu la ñu bëgg woné parce que kenn du tok fenn juróom-ñaari waxtu wala juróom-ñetti waxtu yoo xamante ni la ñu fay wax neexu la surtout du par force nga ñëwee kooku dañ ciy sant lool am ci nag yaakaar bu wér li tax ñu war a am yaakaar aussi dañ ko wékk ci la nga xam ni ñu ngi koy def ñu ngi liggéey président Macky Sall mi ngi liggéey surtout am na gis-gis bi ñuy def référendum fii ci Parcelles Assainies dañ leen ne woon dañuy nekk ci référendum jëm ci législative lii mooy seeni jàmbat lii ak lii ak lii neewoon naa leen nag lépp mënuñu ko faj c'est pas possible mais lu ci nekk dinañ ko adressé wax ko ki ñu ko war a waxal bi ñu ko waxee ak président Macky Sall jàpp na ci jox ñu ay ndigal ñu tàmbali ko. stade bi tëju na fi juróomi at xale yi Parcelles Assainies bu ñu soxla sport stade Demba Diop la ñu doon dem. loolu liggéey bi tàmbali na te des na dina jeex incha allah ci nu mu gën a gaawee.